na suñu technicien Ndoy Barham yàlla defal ko ay yéeneem ñaanal xaaj maas ñaanal itam saalix Ndoy dañuy ñëw rek ci tontu SMS yi bu ñu ngi woon ci question Hawa jàllo bi ci naka la ñuy tëddee ak ban tëddin moo gën a yiw ma ne la yonent bi nii la daan tëddee wala nga jaaxaan waaye moytul defeenu waaw moytul defeenu bu baax baax kii daam sàmb la chauffeur la ca Tiwaawoon walla sax transporteur la xanaa dafa wax ne day laaj feebar bi am Chine te di law léegi sax dootul Chine dañ naan feebar bi am ci àdduna bi defe naa loolu la ñuy wax walla boog bi jógee foofu law ñëw mu ne dafa am ñoo xam ni dañuy wax ne joxante loxo dañ koy moytu war moytu gis naa yónni nañ ma benn vidéo Pape Jaxate bu Cees moo ma ko yónni waa dafa wàcc ci oto bi saaliw am ku ko uur si di ko jox loxo mu ni nii daldi koy jox tànku ndeyjooram jooram kay jox ko tànku ndey ñu dóorante mu dóor ko tànku càmmoñu mu dóor ko càmmoñu maanaam ay tànk lañ nooyu kon li ma bëgg a wax ci li ma njortu ci vidéo boobu mooy kon dañoo jàpp ne joxante loxo gi jàngoro ja mën na caa jaar waaye am na fu ñu riiri mooy lu jaar ci loxo war naa mën a jaar ci tànk am déet lu jaar ci loxo mënul jaar ci tànk mais mën na ci jàpp ndax danga nga tànk booy jàpp di boo jàpp li booy sangu danga nga raxas say tànk te loxo nga koy raxase kon bañ a joxante loxo du wax parce que bi muy ñëw joxe loxo indiwu ko xam nga ndóoy gis nga Abraha bi ko yàllay alak xam nga lum yebal ay picc alam tara kayfa rabbu ko bi asxaabil fiili alam yajal kayduhum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi xijaratin min sijilin fa jaalahum ka asfin makkuuli yàlla am na ñu ko jaralul muy yëkkati malaaka am na yeneen i yoo xam ne armé wu nañ toog lu ñuy xaar ndigal ñu dem xam nga oto sapeur nu war a def ak oto hôpital fu mu toll war naa nekk plein li ma lay wax kenn du ko dindi ku ko dindi dangaa soxor rek dama ne oto hôpital ambulance oto sapeur dama ne jamono bu jot daa war a nekk plein ndax bu gaaree day wan gannaaw bunt bi déedéet dañ koy armé gaare ko mu jàkkarlook bunt bi ñi aye war a liggéey bu dee ci sapeur ñi aye war a liggéey bu dee ci hôpital ñëw chauffeur bi war a yóbbu warul jógee ca oto ba ndax am na urgent dina am ñu war a jël malaat bi yóbbu ñu ne ana chauffeur bi ñu ne génn na diggante bi ñu koy téléphoné jot boîte vocale diggante bi ñu koy téléphoné mu nekk fu sori diggante bi ñu koy téléphoné fekk mu ngay jokkaloo maas diggante boobu dee xaj na fa kon nañu armé oto bi armé chauffeur bi lu ñuy armé oto bi lépp na fi ne essence bu doy chauffeur bi toog ci wetam malade bu ñu génn yépp ci bu malade bi dugg fekk na mu ci biir oto voilà mooy dëgg waaye xam nga léeg-léeg nga dem ci hôpital ñu ne waaw euh, oto bi amul essence ñu bëgg a laaj ñi moom malaat bi bu ngeen amee essence ñu ne ay ñu lijjanti dix waa ji war a daw dem uuti essence war a ñëw te ci yoon li ñu natt li ñu natt diggante Dakar ak Thiès bu fi defee deux heures de temps dana dee kon léegi dem wuti essence mu ngi jël temps bi del siwaat mu ngi jël temps bi lijjanti luñ jënd essence mu ngi jël temps bi loolu la yàlla wax nee na sama sama militaire yi ñoom ñépp dañu armé lu nuy xaar aywa ñu amul dugg ci néeg ma jël lii ma jël lee ma jël laa déedéet aywa aywa rek aleyha malaikatun xilaasun shidaadun laa yaasuuna allaha ma amarum wa yafaluuna ma yumaruun moo tax bi ci des mooy ban oto bugaan war nay def essence ba fees oto borom kër gi borom kër gu mën a doon sa oto boo koy gaari na am essence bu mën a jógee ci dëkk bi nga ne jëm ci dëkk bi gën a sori ci Sénégal léeg-léeg nga gis ko am oto njabootam feebar mu ne oto bi amul essence ti nàngam <laughs> man gis naa ndoy wallaay maa dugg ca booba oto am na ku ñuy wax Pape si caam doomu bàyyi di caam la deewul de mu nga ca Kaolack lay liggéeyee doom yépp maa leen jàngal ñoom ab Guèye ñépp ndooy maa fekkee man ak moom ñu nga ca oto booba ñu am réunion daayiratul muxtafiina ñu war fa jógee dem gàmmu kër Assane Ndiaye gàmmu ga moor ña nga ko doon woy deewul moom it mu ngi dund ñi ma lay wax ñëpp kenn deewu ci xam nga seede bu dee wuurul mën naa am sax ay feni kese la ñi ma lay wax ñëpp danañ ko déglu baa am koo déglu laaj leen ko maas ñu réunion ba pare ñu ne il faut ñu def délégation dem gàmmu ga kër Assane Ndiaye ñu yónnee garage amuñu oto booba kër maam Cheikh Awa Balla Mbàkke ci Tiwaawoon quartier amoon na gàmmu ñu yónnee fa pour si wut oto amuñu ñu fekk fa benn oto mburu ka moom oto mburu ba kamara la tudd moom it deegul mu nga Tiwaawoon kamara deewul li ma la bëgg a nett li lu garaaw la nag ñu ñëw fekk Camara ñu ne ko waaw gars yi waxaale moom ne ko dañu bëggoon ko ñu yóbbu gàmm mu ne aw essence nañ leen dem station ñu ñëw ci total bi bi ne ci yoonu mbooro bi ba ñu yegg seen ndóoy ci total bi ñu fekk mu tëj ñu fëgg ubbi luñ ñu kenn ci waa daara ji ci daayira bi maa ngi toog de ma ne leen niñ leen ñibbi amuñu oto lii waratunu am ku ne kamara ndax mën ngaa taal oto bi ma warlu la essence ma ne ko yow wér nga fo essence bi jaar mu ne mën na ko kamara ne ko duma dugg sooy woo ma ne ko taalal daa dof kamara dugg Pape si caam dugg ma dugg waa ji dugg maas waa ji ne bu kurus gi ne ko doxal ñu dem maa ngi ci gannaaw dégg per yi naan taj kamara di dawal ba kër Assane Ndiaye oto bu amul essence oto mburu la ñu dem kër Assane mane ne nañ leen laaj ci oto yi ko am gasoil moo gën ñu wàññeeku oto buñ tëj ci amul gasoil waa ji ne ma Iran du maa leen indi fii maay delloo oto bi tuwaa ndoo ñu waññeeku waat ak oto ba waa ji xëccaat kurusa di dóor ba ñu dugg tuwaa Camara nag ne ko yow danga ma wax oto ba amul essence noo ko yóbbu mu ne ko sëriñ Babacar si laa ko dóor billaahi maa ngi cooto oto bi bi ma duggee dama jàng faatiha jàng ayatul kursi jàng xul walla wa ndax maw doone wa man daa bi vii alal yaqiini yu jëb bi maaraama min al matini soxla boo am nga jàng faatiha waxuma ko de man waxuma ko de Maodo ko bind faatiha ayatul kursi qul huwa allahu ahad Maodo nee na ak salaatu ala nabi nee na soxla boo ko dóor booy dogu muy faju mu ne tu dogu naa oto bi dem moom la jàmb sëñ Babacar ne ko oto baa ngoog yaa ngoog ñu ngoog noonu la ñu demee ba kër Assane ñibbisiwaat Tiwaawan Camara fu mu dajee man dafa ma waa ana seen waaju garaaw ja waa Iran ana seen waaja ma ne ko waaja de gëj naa koo gis Pape Si Thiam fu ñu dajee fu ñu dajee mu fàttali ma loolu loolu man maa ko fekke nit ko yóbbu oto ci oto ba amul essence ma ne ca oto maa ngi naan ñun bu ñu paani fu ñu jëm dem nañ kër Assane del si Tiwaawan Camara dem gaari oto bi mu fajar la doog am essence wóolu rek wóolu rek yàlla bu bëggee dogal dogal lu ko neex lay def kon feebar du tax kenn bañ jox kenn loxo déedéet joxante leen loxo du tere ñu gàmmu ankay ah, ndax tagg yonent bi mën naa fànq lu ne ah in jaaxaw su jooni maw dooxu bokk na ci liy faj aajo tagg yonent bi dagg yonent bi jeex na donc feebaru Chine du ñu tee joxante loxo ndax li ngay ragal ci loxo bi mën naa ne ci tànk bi rek ngay ragal ci jëmm ji mën naa ne ci ngelaw li yàlla daal nañ ko bàyyi muy yàlla ma euh, euh, euh, saali ñun ñu doon ay jaam man daal loolu laa gëm nañu bàyyi yàlla muy yàlla ndóoy ñun ñu doon ay jaam moo ñu jig nag tataa yi daal nañ leen bàyyi ñuy ay tataa bus yi doon ay bus car rapide doon car rapid taxi yi doon taxi kalandoo yi doon kalandoo nit ñu dooni client rek waaye ku fi dof dof lu ba doon fi kalandoo danga xam ne kalandoo nu sa morom yàlla kenn mënu ko uutu nañu ñu bàyyi caaxaan yi bàyyi waxi tappale yi bàyyi foo yi dëgg yi nañ ko teg fële te nekk ko honnête Serigne Touba radiallahu anhu dañ ko laaj ne ko garaat yi jaam di am ban moo ci ëpp doole sëriñ Tuubaa ne ne li yàlla digle ti bàyyi li mu tere mooy garaat bi doole ci garaat yi muy maqaamatul ubudiya loolu la wax wax na dëgg wa maa xalaatul jinna wal insa illaa li yaabudooni kon maqaamatul ubudiya moo gën loo mën a oote ndóoyi ti jaamuwoo yàlla zéro ku la mën a jur jaamuwoo yàlla zéro nit ñi bu ñu nax seen bopp bu ñu nax seen bopp eh, ndooy dama ko wax benn sëriñ damay <coughs> daf may yónnee ndaw ne naa ko jox suma numéro ma jox ko suma numéro